mois yoo xam ne waxoo dara tey jii un an jàll na par rapport aux promesses faites par rapport aux chantiers engagés tey jii nii ndax Kolda mi ngi xam ci municipalité bu bees bi. Euh, nee la il nous faut faire ce euh, euh, ma naan un bilan parce que tuuti naa trop bi di laajte bilan ci ki nga xamante ni un an mhm. mais damay diagnostiquer les projets amoon na nee la le maire en tant que a une bonne volonté pour exécuter ses projets il mm a une vision Mamboy a une vision mais n'a pas d'équipe il a beaucoup de bras cassés autour de lui qui promettent aux populations lu bëri te mënuñu ci tous mënaluñu seen bopp actuellement lañu commencé gis ni ñu ngi solu ba rafet dugal seen loxo ci poche yor ay oto te pourtant il y a quelque temps que doy xam nañ leen de boo leen may cigarette sax mënuñu. loolu ça signifie quoi ça signifie ce que ça signifie ñun on va commencer à analyser leur projet ils ont lancé seize projets gisaguma benn buñ ci pare dul mhm. benn manège ci sama quartier lañ commencé. am na une route ki traverse mon quartier kon ko nee nañ dinañ ci jàpp dem traverser quartier Sinthiane dem jaar Buuna ainsi de suite xaalis boobu dégg naa ni décaissé nañ ko intégralement ñu ngi koy topp actuellement chaque projet bi ñu lancé là je suis dans les dispositions nee naa waa cabinet ba damay démissionner fa yii de mon cabinet hmm. pour me consacrer uniquement sur la politique wan gars yi ne mën naa politique am naa jotam <laughs> wallahi azim hmm. mën naa politique am naa jotam cabinet bi l'a mis dans les rails hmm. je vais démissionner de tout, toute fonction de mon, de cabinet AB Partners mmh. récupérer vous euh, ma ne la même les statuts dinaa ci génn me consacrer pas à Kolda au Sénégal mmh. parce que liy waaj a xew 2024 dinañ ci saab sàpp